بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكهن أزواجهن أن ينكهن أزواجهن إذا ترادوا بينهم بالمعروف ذلك يوعد به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن أولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة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 ولكن لا تواعدون سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاهذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسي قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنتهوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم ne wa ida tallaqtumu nisa su fekkee ne da ngeen a fase jigéen ña fa balax na ñu daaji jot seen yiddaya kon fala taadiluhunna bu leen leen geg an yankihna ba xañ leen ñu sëy ak azwaajan jëkkër azwaajahunna ñu sëy ak yeneeni jëkkër iza bu fekkee gërëmante nañ baynahum seen diggante bil maarufi ci ñekk borom bi ne zalika loolee bihi la dee fi waaree man kaana minkum képp koo xamante ni nekk na ci billah di gëm yàlla wal yawmil axir gëm bés péncu borom bi loole zalikum moo gën a sell te teey wa athar te moo gën a laab wallahu yàlla day yaalamu xam na wa antum yéen laa taalamuun du ngeen xam yàlla xam na lu ngeen xamul kon lépp lu ngeen di def moom xam na ko mu ñëw ci yaay mu ne wal waalidaatu yaay yi da ñoom yurdi'na danañu nampal awlaadahunna seen doom yi xawlayni kaamilayn ñaari at yu mat sëkk lañu ñu war a nampal soo amee doom di nampal nampal ko ñaari at moo gën nee li man araada ñeel koo xamante ne namm na an yutimma muy matal radaa nampal wa alal mawluud war na nag ñu jural moom bàyyi lahu ñeel na ko na seen wërsëg ñoom jigéen ña wa kiswatuhunna ak seeni yére bil maaruf ci njekk borom bi ne laa tukallafu deefu togg nafsun bakkan illa wusaha ndare la mu attan mu ne laa tudaarra deefut laa tudaarra deefut lor déet lor di war waalidatun yaay yaay kenn waru ko lor bi wala yaa ci doomam su fekkee yaaya ngi nampal dañu ko war a delloo la muy nampal waaye wala mawludun déedit nag ñuy lor ko ñu jural lahu ñeel ko bi wala di ci doomam nit it kenn du ko lor ci doomam bu dee baay kenn du lor nit ci doomam bu dee yaay léegi nag wa waarisi war na aji donnu ja mislu comme la baay am moom daal doom baay yaay kenn mu ñu leen a xañ miraas fa in araada su fekkee namm nañ fi saalan ak nag seral heure bu ñu bëggee feral seen doom ñoom ñaar ñoo xam waaye daal nañ ko def an taradin ci gërëmante minuma ci ñoom ñaar wa tashaawurin ak waxtaanee borom bi ne fala junaaha déet bàkkaar alayhima di war leen léegi nag wa in aradtum su fekkee da ngeen a bëgg yow ndey ak baay am ngeen doom waaye yaay mënta nàmpal wala dafa am lu tee mu mënta nàmpal ba bëgg ngeen an tastardiu ngen sàkkoo nampal lu awlaadakum seen doom yi kon falaa junaaha déet bàkkaar aleykum di war leen ida sallamtum ndeem fay ngeen maa aataytum la ngeen joxe woon bil maarufi ci njekk kon nag wattaqullah ragal leen yàlla waalamu te ngeen xam ni anna allaha naka yàlla day bi ma taamaluuna ca la ngeen def ko basirun aji gis la ko lépp lu ngeen di def yàlla ne gis na ko léegi nag mu ñëw ci góor gu génn àdduna mu ne wallazina naka góor ña nga xam ne nag wala ña nga xam ne yu tawaffaw na def na faat faatu minkum ci yéen te ba ñuy faatu wa yazaruuna dañoo bàyyi woon azwaajan ay jabar jabar yooyu yatarabbas na nañu ténj bi anfusihinna ci seen bopp arbaata ashhurin ñeenti weer wa ashran ak fukk jigéen bu jëkkëram gaañoo ñeenti weer ak fukki fan lay ténj borom bi ne fa ida balagna bu fekkee ni jot nañu ajalahunna seen dig maanaam toog nañu ténji ñeenti weer ak fukki fan fala junaaha aleykum déet bàkkaar di war leen fii ma faal na ca lañ defoon fii anfusihim na ci seen bopp bin maaruf ci njekk wallahu yàlla day bi ma taamaluuna ca la def ko day xabiirun aji xam la ko ba tey wala junaaha déet bàkkaar aleykum di war leen fii ma arradtum te gaaral bihi ca min xitbatin nisaa ci labat jigéen ña aw akkanantum walla ngeen nëpp ko fii anfusikum ci seen bopp bu sa waay gaañoo wala ki gaañu mën ngaa takk jabaram borom bi ne baal ba ndaw si téen ji nga doog a labat amaa nag ndaw si di téen ji ngay bëgg labat loolu dafa ñaaw waaye nag bu la neexee mën nga koo dóor liñ ñaan ab sëkk la sa fexeel ngir ndaw si xam ni yow sa xel mi ngi ci moom xanaa léeg leen nga ñëw di ko indil ay kadoog yu demee noonu su ko defee mu jàpp ne kii kat maa defee ne day waaj a rang su ko defee boo wee fii jeexee nga ñëw ne ko maa wékkoon mbubb loolu borom bi nee na dara nekku ci waaye mu nekk ci ténj nga naa kaa ah, moom kay wax dëgg yàlla sama xel a ngi ci yow sama nangam da nga ko génn ci ténj li dugal ko ci lu baaxul moom la borom bi ne aw ak nantum wala ngeen sax junju fi am ci seen bopp borom bi nee na alima allahu yàlla day xam ne ne annakum naka yéen lu mu yàgg-yàgg jigéen boo ko nobee sa taskuruunahunna na ngeen ko wax moom kay seeti bu bëri weeg elage sama xarit la woon ak ay benn bakkan dañu woon ak loolu lépp yóbbuwu la fa loolu la fa yóbbu mooy ndaw si rek borom bi nee na yàgg-yàgg da ngeen ko wax kon nag mbir mi moom bu yeboo mu teeralee rek allahu akbar yàlla hakim <laughs> lii yàlla rek ko ñemee wax <laughs> yàlla rek léeg-léeg gars yi ñëw seeti soxna si noom maag elage ay waaye la ñu ñoo daan demandoo fii yàlla ne noppi ko seetaan ak te xam ni wax jépp du loolu wax ji mu yekk rek mooy ah bu doon sama sago ma remplacé hélas loolu rek mooy wax ji moo tax borom bi ne na alima allahu annakum satadkunahunna da ngeen leen ko wax de walakin waaye nag ne laa tuwaaxiduhunna bu leen leen ko dikk nag sirran secret léeg-léeg nga bañ ko ko wax nit ñi toog nga làqu woo ko téléphone naa ko samay xalaat ci yow nag yàlla neen loolu jaru ko nag illa an taqulu ba ta ngeen wax rek qawlan maarufan wax bu ñu xam mu ne wala taadimu la bu leen dogu uqdata nikaa ci pasuk jigéen ña jigéen ji jëkkëram gaañu na ngeen dogu ni par force rakku jëkkëram a koy jël par force maam a koy jël wala bàyyi loolu aada la sey sëy séquñu sëy amul aada waaye jékki rek comme moom moom gaañu na nañ ko jox mag ji nañ ko jox rakk ji nañ ko nangam yàlla nee na loolu nag bu leen ci dogu su ndaw si bëggee mën na nekk su bëggul kenn ko forcer ndax sëy kat nag sëy la aw sëy moom sëy dong la nee na nag wala taajimoo bu leen dagu uqdatan nikaa takk sëy ba xataa yabluga ba ta jotee alkitaabu téere bi ajalawu digalam waalamu xam leen ni anna allah naka yàlla yaalamu xam na ma fi anfusikum la ci seen bakkan yi yàlla xam na la ci xel yi de kon faxdaruhu wattu leen yàlla yàlla seen lépp da koo xam kon jarul jéem a kii moytu leen ko rek waalamu xam leen ni anna allaha naka yàlla nga gafurun aji jéggale la xalimun aji xam la waaw bunt yi lan moo tee ñu sës ko mais nañu wut ay birig foofu eh dama nga jël bant fa la ngeen sës ko waay kër kër ji toog ngeen toog di xool muy yàqu nii rek nee na balaa ngeen koo def xatta yablugal kitaab ba tee jotee téere bi ajalawu digalam waalamu xam leen ni anna allah naka yàlla day yaalamu dana xam maa fi anfusikum la ca seen yi ak xel yi fahzaru wattu leen ko waalamu xam leen ni anna allah naka yàlla gafuurun aji jéggale la xalimun yàlla ku lewet la laaju naa adeet bàkkaar nag aleykum di war leen in tallaqtumu nisaa bu fekkee ni fase ngeen jigéen ñi maalam tamassuhunna feeg laalu leen leen dañ laa may jabar jotu leen a sëy nga fase ko aw tafridu lahunna wala ngeen dogal leen faridatan cër ne kon nag wa mattiuhunna na ngeen leen yóbbal alal muusi borom bi nee na ki am lu bëri na joxe qadruhu kenn am amam wa alal muqtiri ki am lu néew na joxe qadru kem am amam loolu mataan njekk la nag yóbbal la bil maaruf ci njekk xaqan borom bi ne lii dëgg la boo xam ni war na ala muhsinin way def njekk ya léegi boo fasee jabar fekk jotu leen a sëy wala mu ñaan la baat fekk jotu leen sëy bu la neexee nga may ko xaaj bi la ci des nga téye ko wa in tallaqtumuhunna bu fekkee da ngeen leen a fase min qabli an tamassuhunna lu jiitu ngeen di tëdd ak ñoom te fekk waqat farattum lahunna cëraloon ngeen leen faridatan cër kon fa nisuma farattum jox leen leen xaaju la ngeen leen waxoon illa an yaafuun bata rek jéggale aw yaafu alladi wala jéggale ka nga xam ne bi yadihi nekk ci loxoom uqdatu nikah pas-pasu sëy ba borom wa an taafulu wa su ngeen jéggalee nag aqrabu moo gën a jege li waa ragal yàlla waaye daal wala tan sawul fadla baynakum bu leen fàtte ngëneel jigéen boo ko pasee mën koo may la ko joxoon borom bi ne na teraanga la su fekkee nag mënoo ko koo may te fekk jotu leen sëy mu delloo la xaaj bi dara nekku ci waaye yàlla daal ni mu waxee sii mooy ngeen may leen ko moom moo gën waaye nag ki mën a maye na maye ki a maye kenn du ko xas inna allaha naka yàlla day bi ma taamaluun te la ngeen di def ko basir aji xam la ko mu ñëw ci julli ak njëriñam ne xaafidu wattu leen ala salaat ci julli wa salaatil wusta wattu leen julli yi xaafidu ala salawaati loolu bu ñuy paree dañ koy dugal xaafidu wattu leen ala salawaati ci julli juróom wattu leen julli juróom suba jógal ca fajar ga julli ko tisbaar noonu tàkkusaan noonu timis gee noonu kon borom bi ne hafidu ala salawat sàmm leen waxtu wi juróom wa salaatil wusta ak julli ba digg doomu julli ba digg doomu nag nee nañu mooy julli tàkkusaan wa quumu waay waay jóg taxaw lillaahi ñeel yàlla xaanitiin di way toroxlul yàlla jóg leen jullil yàlla te ngeen toroxlul ko fa in xiftum su fekkee ni nag ñoo nga toog in xiftum su fekkee ni ragal ngeen war julli nekk ci xare kon nag farijaalan julli leen di dox aw rukbaanan wala ngeen julli war fa ida amintum su ngeen demee ba am sécurité na xeex bi jeex na kon faskurullah tudd leen yàlla kama allamakum comme na mu leen xamalee maa lam takunu taalamun la ngeen xamutoon gis nga julli du la wàcc ba ci xare yore jaasi sa morom yore jaasi fetal bomb yépp il faut nga julli rek kon nag boo waree fas julli baax na ngay daw di julli baax na foo nekk di julli baax na mu ñëwaat ba tey ci wàllu ndénkaan ndénkaane mooy lan testament nit ki alal bi nga am génnee ci lañu la ca sant waxal alal ji mu leer balaa ngay génn àdduna ne wallazina naka gaañe nga xam ne yu tawaffaw na def na faatu minkum ci yéen te ba ñuy gaañu wa yazaruuna ñu nga bàyyi azwaajan ay jabar kon wasiyatan mbir moom nañu def ak dénkaane li azwaajihim ñeel seeni jabar dénkaane la la ca nekk mooy jabar ya am nañ ca mataan loolu la nekk yóbbal ilal xawli jëm at gayra ixraaj mbir moom muy bañ a génnee léegi nag nit bu gaañoo bu ñu génnee jabaram kër gi fa la war a ténjee bu fekkee nag ñoom fa in xaraj na ñoom jigéen ñi ñoo tànn génn kon fa laa junaaha aleykum bàkkaar waru leen fii ma faal na ca lañ def nit ki daal jëkkëram gaañu na mu ne ci kër gi lay ténjee ci farta la war a ténjee waaye bu nee daa bëgg a nekku ci mooy wala fala junaha aleykum fii ma faalna te la def ko fii anfusina ci seen bopp min maarufin ci njekk wallahu yàlla azizun aji tedd la hakimun aji xarale la yàlla ku tedd la ku xarale la léeg-léeg jigéen jëkkëram gaañu mu am mooye bëgg a dem feneen dara newu ci léeg-léeg mu bëgg a toog kon nañu ko bàyyi mu toog kon jigéen sëy ak gaañu ñoo ànd lu ci am rek nañu xam ne daal njëkk li mooy sëy moom daa am fu muy yem dafa am fu muy jeexee fa mu jeexee ak fa mu yem nag mooy fa ko borom bi taala yemale mu ne walil mutallaqaat ñeel na jigéen nañu fase mataawun yóbbal bil maarufi ci njekk borom bi ne loolee kat xaqan war na alal muttaqin dëgg la war ñi ragal yàlla foofu lay jeexee mu ne kadalika naka nii yubayyinu llahu lakum la yàlla di biralee leen ayaat yi aayam ya laallakum boo taaqiluuna ngeen xelu yàlla yàlla ñu dégg topp incha allah ba dars bi ñëw